بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر السحور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات وتجارة التي لن تبورا وأشهد أن لا إله إلا الله هو الرحمن الرحيم ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعمه وشرابه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñoo ngi jël sunu dars ñetteel ci dars weeru koor tey sunu dars mooy mal al fawaid allati najniha min qawli illahi taala ya ayuha alladina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaqun tey sunu dars mooy ana yan njëriñ la ñuy jële ci wax ji yàlla wax woote bi yàlla woo way gëm yàlla yi ne leen farataal nañ ci yéen koor comme niñ ko farataale woon ci gaa yi leen jiitu woon démb sabab bi nag mooy pour ngeen ragal yàlla mbokk yi ndeke dafa am ay njëriñ yu bare bare bare bari yu ñuy jëlee ci weeru koor wax gi yàlla wax ne yéen way gëm yàlla yi loolu képp ku gëm yàlla dugg nga ci biir bokk nga ci woote boobu yàlla woote mbokk yi ab jullit nag bu gëm yàlla bu déggee boroomam woo ko dafa war a wuyu bu dee dégg nañ lan mooy baatu ngëm yàlla woote gi mu woote daf ko jagleel ay nit ñi mu ko jagleel mooy ñi ko gëm lan la leen di doyee mu ne farataal naa ci yéen koor maa leen ko sant pour ngeen xam ne du lu metti du yéen dong aussi la ñu ciblé sant leen ko waaye bal ba yàlla bindee àdduna ak léegi jaamu yàlla gu fi mos a nekk yonent bu mos a ñëw yàlla sant na say nit koor mbokk yi njëriñ yi ñuy jëlee ci koor bi ci njëkk mooy bayaanu ahamiyatu siyaam day leeral importance su koor xam ne koor lu am solo la koor yàlla ko santaane moo tax mu am solo xaysu faradahu llahu ndax yàlla ko farataal alal umam min qablina yàlla ko sant xeet yi ñu jiitu woon démb maadaama yàllaa ko sant xeet yi nga xam ne ñoo ci ji ñoo ñu jiitu woon démb wa haada yadullu ala mahabbatillahi azza wa jalla lahu loolu day wane ne yàlla da koo bëgg jaamu yàlla la gu yàlla bëgg ba koy sant xeet yi ba ñun ñu ñëw yàlla sant na ko kon wa annahu laazimun li kulli umma moom koor dafa taqoo xeet yëpp xeet du musa ñëw rek sunu boroom sant na la ko ne la wooral ndax jaamu yàlla la gu yàlla bëgg loolu moo tax moo am solo mbir pour ñu xam ne am na solo wala amul solo dañuy xool ki ko santaane ak ni mu ko santaane loolu tax ñu xam ne mbir moomu am na solo saaniyan at taxfiif ala hadihi l umma bokk na ci njëriñu koor yàlla subhanahu wa taala moo ko oyofal ci kaw xeet bi haysu innaha lam tukallaf wahdaha bi siyaam ndax ñun rek la yàlla sant nañ woor tontu bi mooy déedéet loolu moo ne yàlla daf ñoo bëgg bi mu ko santee ñeneen ñi ni mu ko leen ko sante woon noonu lañ ko sante kon yàlla jagleelu ko ñële rek bàyyinu loolu day wane ne ñun tamit daf noo bëgg ndax bi mu ko santee ñee sant nañu ko allazi qad yakunu fihi mashaqa ala nufus wal abdaan koor googu nim ko sante woon ñële ñu koy def yëg ci ay coono ci seeni bakkan ak seeni yaram ñun tamit noonu lañ ko yàlla sante suñ ko yàlla waxoon ñun kese kese ne yéen rek yéen a musa woor kon ñu ne ah yàlla day ñun dong la ko teg lu tax tegu ko ñeneen ñi waaye lan la ñuy wax ci aaya bi kama kutiba ala alladina min qablikum ni ma ko sante woon ñeneen ñi laa leen ko sante ñetteel njëriñ yi ñuy jële ci koor al ishara ila anna allaha taala akmala li hadihi al umma diinaha dañuy jàng gis yàlla dafa joxoñ ne diine jii di diine islaam xeet wi di xeetu muhammad yàlla daf leen a matalal seen diine diine ji dafa mat sëkk lépp ci mat côté boo jaar wiir da ngay fekk la yàlla santoon nit ña démb ñun am nañ ko tey kon yàlla daf ñoo matalal sunu diine haysu akmala laha al fadail allati sabaqat li gayriha yàlla daf noo defal sax matalal ñu bépp ngëneel boo xamante ne yàlla defaloon na ko démb yeneen xeet yi ñun yàlla tey indil nañu xeet ngëneel yu mel noonu ba ñu raw ñële ci ñun rek ngay fekk ñuy weer weer woo xam ne ko woor yàlla baal la ci ñun rek nga fekk ñu am bëccëg boo xamante ne moo gën ci bëccëg yi ci ñun rek ngay fekk ñu am guddi goo xam ne moo gën ci guddi yi ci ñun rek ngay fekk ñu am téere boo xam ne moo gën ci téere yi ci ñun rek ngay fekk ñu am diine joo xam ne moo gën ci diine yi kon ñun yàlla daf noo matalal lépp ñaareel bi mooy hal xunaaka xikaman min ajli siyaami ndax dëgg-dëgg war na noo laaj suñu bopp ndax am na fi lu tax yàlla sant ñu ñu woor ndax dëgg dëgg dëgg dëgg am na lu tax yàlla sant ñu ñu woor waaw waaw tontu bi mooy waaw waaw suñ leen doon laaj yéen ñi toog fii ñu leen ne lu tax yàlla sant nu woor looy tontu yow. yow. yow. yow. yow. yow. yow. maanaam mu ne naam waaw waaw am na kon bu fekkee ne loolu am na fa min alxikami walfawaid allati tadammanaha siyaam am na fi ay mbir yoo xam ne ak ay njëriñ yoo xam ne koor daf koo ëmb loolu tax yàlla sant nu woor bu ci njëkk annahu ibada koor jaamu yàlla la kii woor lu tax muy woor jaamu yàlla moo tax nga bàyyi xiif bàyyi lekk bàyyi naan xiif bàyyi bànneexi bakkan pour lan pour jaamu sa borom nataqarrabuha ila rabbina dañ dañ koy def pour jege sunu borom nataqarrabu biha ila rabbina dañuy woor pour jege sunu borom nekk yàlla boo ko bëggee jege dafa am yoon yooy jaar dafa am melokaan booy yor dafa am mbir yoo xam ne danga koy def nga jege yàlla mbokk yi ñun ñi toog fii di def dars bëgg nañoo jege Macky Sall wala bëgguñu koo jege kan ci ñun moo ko bëgg a jege ne yëkkati loxoom yéen ñëpp bëgg ngeen koo jege lu tax ngeen bëgg ko jege ndax xam nga ne boo ko jegee mu defar sa mbir te mbir moomu yëpp yëpp muy defar lan la xaalis kese du leneen waaw ñu jege yàlla ak ñu jege Macky Sall bu bu ëpp njëriñ allahu akbar naka la ñuy def ba jege yàlla ndax yàlla buñ ko jegee xaalis la ñuy jox ah kay waaye lépp ci la bokk da ngay texe àdduna texe àllaaxira boo jegee yàlla kon ndeke koor nataqarrabu biha ila rabbina dan ci jege sunu borom bi tarkil mahbubat allati jubilana ala mahabbatiha min altaami walsharabi walnikah linanaala bidhalika ridan rida rabbina dañuy jege yàlla ci jaamu gi ñu koy jaamu ci koor ci bàyyi li nga xam ne moom la ñu bëgg ci lekk ak naan ak sëy pour nu am sunu ngërëmal borom allahu akbar mbokk jullit yi su doon benn tomb bi dong ca la nu yem ñu ne lii mooy njëriñu koor ki koy def bàyyi gi muy bàyyi bëgg-bëggam bëgg-bëgg yi mooy lekk naan sëy bàyyi bi nga koy bàyyi ngir lan ngir nga jege yàlla ngir nga am kontante yàlla bu doon lii rek la doy na ñaareel bi maarifatul ghani qadra nicmatillahi alayhi bokk na ci xikami koor yow mi borom alal yow mi am ba giijal yow mi yor yu lu ne gàññ nga yëg xéewal gi la yàlla defal yow mi am yàlla dalaa defal حيث إن الله تعالى قد يسر له الحصول على ما يشتهي من الطعام والشراب والنكاح nga yëg ne yow kat yàlla baaxe na la yow mi am dana yomb ci yow ci trop dana yomb ci yow trop lépp loo bëgg ci lekk nga am ko lépp loo bëgg ci naan nga naan ko jigéen joo bëgg a takk-takk ndax yàlla may na la am nga nga sant sa borom fa yashkuru rabba ala hadihi ni'mati nga sant sa borom ci xéewal googu mu la defal nga geestu gis am na sa benn mbokk boo xam ne yow loo bëgg a lekk lekk loo bëgg a naan naan loo bëgg a sol sol jigéen joo bëgg a takk takk loo bëgg a naan naan am na sa benn mbokk boo xam ne moom ndékki sax tëna ko léeg-léeg mu ndékki añ tëkku léeg-léeg mu añ reer tëkku léeg-léeg mu reer wala mu tëdd fanaanoo noonu fande yow loo bëgg am nga am kon yow war nga sant yàlla ci may gim la may ba loo bëgg am nga am ko su boobaa lu lay war fa yajuudu alayhi bi sadaqa wal ihsaan kon soo wooree ba ngoon nga ñam xiif ni mu mettee sa xel wala naa dem ci sa mbokk jullit bi nga dëkkal te moom mu dëkki xiif guddeeg bëccëg mu dëkki moom ak njabootam ñuy xëy duñu ndékki moom mu xëy dem ci liggéeykaay bi ndékkiwul ay doomam xëy jàngi ndékkiwuñu soxnaam ne ton ca kër ga ne kott te ndékkiwul léeg-léeg journée bi yëpp ñu lekk waaye lanuy lekk du lu leen gënal ndax léeg-léeg sax mu nekk sombi bu amul soow amul suukar wala mu am suukar du am soow wala léeg-léeg sax suukar nekk ceeg soow waaye du du na mu war a demee na mu war a safe mu safe ko noonu kon yàlla sant nañu koor pour ñu ñam xiif pour di mën a fàttaliku suñuy mbokki dëkkandoo yi ñu dëkkal ci kër gi ak koñ beeg gox bi ñoom ñuy dëkk xiif bis bu nekk ñun benn weer dong lañ toog benn weer woowu sax ci biir weer yu ay waxtu dañu ñam xiif yeneen waxtu yëpp dañuy suur ñoom nag ay ati ati ati lañ toog di xiif ay ati at la ñuy toog di mar ay ati at la ñuy toog di sol lu ràpp ay ati at la ñuy toog duñu bànneexu ci beet benn xéewal ndax amuñu kon yàlla indi nañu koor pour ñuy fàttaliku ñooñu ñetteel bi mooy atamarrunu ala dabti nafs yàllaa ñu indil koor pour nuy entraînement pour ñu mën a maîtriser suñu bopp wastaytarati alayha ñu mun koo tënk yeew ko naj ko hatta yatamakkan min qiyaadatiha lima fihi xayriha wa saadatiha suñu tàmmee poña bakkan bi di ko tënk di ko yeew di ko wommat di ko jaarloo nun fi nu bëgg au lieu que bakkan bi wommat nu di ñu jaarloo moom fi mu bëgg ñaar rekk a fi nekk nga wommat sa bakkan nga bokk ci ñooñu yàlla di wax ne qad aflaha man zakkaha wala bakkan bi wommat la nga bokk ci ñooñuy wax qad xaaba man dassaha soo poñee sa bakkan wommat ko nga am ngërëmal yàlla ak kontaanteem su la bakkan bi wàmmatee yóbbu la nga am alkande yàlla ak meram kon koor dafa ñëw pour ñu mën a téye suñu bakkan poñe ko ni ngay poñee bakkan bi ci salaatu ba timis ne ko doo lekk bakkan mu ne ah nga ne ko est-ce que xam nga yow doo lekk doo fi naan ba timis jot xam nga loolu bakkan ne la xam naa ko kay nga ne ko kon terminé jeex na da ngaa forcé bakkan bi wala forcé woo ko est-ce que gisoo fi loo war a lekk ci kër gi gisoo fi loo war a naan gisoo fi loo war a nga xam ne mën ngaa dugg sax ci biir duus naan ba màndi wala nga nëbbatu fenn le añ ba suur ñibbisi ah kay waaye da ngaa poñe bakkan bi ne ko wallahi yow bakkan di nga ragal yàlla wallahi yow bakkan doo fi lekk wallahi doo fi naan wallahi doo fi sëy wallahi wallahi wallahi ba bakkan bi gëm loolu nga ne ko nag dinaa la ko def weer loolu mooy lan pour que koor gi jeexee nga mën a entraînement nga mën a continuer ci santaane yàlla subhanahu wa taala nga wammat baat bi yóbbu ko ci bakkan bi yóbbu ko ci lu baax lu koy texeel wa yabtaid an yakuna insanan bahima nga moytandiku balaa ngay nekk doomu aadama boo xam ne bàyyi ma nga am na ñoo xam ne ay nit lañ mais ay bàyyi ma lañ ndax seen yitte du lekk du leen dul lekk naan sëy yàlla wax na ko ci alquran waaw inna charra dawaabi inda allah ñi gën a yées ci yàlla ci daaba yi inna allazina kafaru min ahli alkitab wal mushrikina fi naari jahannama yaa ne ulaika hum charrul bariya yàlla nee na bàyyil yéeféeri rek yatamattaun wa yaakuluun wa naaru maswan lahum ñuy lekk di naan waaye safara lañ jëm kon nag mbokk jullit yi koora ngoog ñu moytandiku nekk ay bàyyi ma bàyyi ma mooy nit koo xam ne xamoo sa borom kudul sa borom rek bàyyi ma nga waaw munoo tere sa bakkan bànneex yi munoo tere sa bakkan caaxaanu àdduna ndax lan da nga jàpp ne bakkan bi loolu la bëgg loolu laa koy def bakkan nag moog liirayam liir bu nàmpee ba ci kanam da ngay gis ñu feral ko suñ koy feral du neex day jooy yenn saa yi mu jooy ba feebar waaye dañ koy feral bakkan soo ko feralee mu fer soo ko boyolee mu daal lay alak kon ñu ngi ci weer woo xam ne daf ñuy dimbali pour ñu war a feral suñuy bakkan ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla dimbali nu ba nu mën a wommat suñuy bakkan yi yeew leen jubanti leen ba mu yóbbu nu ci loo xam ne dañ ci am ngërëmal yàlla ak kontaanteem mu soril ñu loo xam ne dañ ci am merug yàlla ak mbugalam noo ngi ñaan yàlla weer wi yàlla sottil ñu ci ay xéewal yàlla jéggal ñu ci sunuy bàkkaar asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu